Moustapha Sek, président du comité. lay wooye da ngeen niroo de

injustice dafay sax te loolu dafay war a jógee ñu ñaan lépp loo xam ne kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko fi mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu yi jariñ askan bi la donc tekk kàddu di ñaanal nag suñu équipe nationale bi nga xam ne moo dem nii tamit ñun ñu bëgg a dem fekk ji leen ñu jël ndam bi ñu yëf yi conférence de presse bi dañ koy commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñi nga xam ni ay julit lañu kenn ku nekk na a def fatiha salaatu fatiha nga xam ne ci benn religion lañ bokk ñu ñaan seen religion waaw ñu ko ñu mën a commencé waxtaan bi bu nous ñu wowe ñun ñu ñëw vers vous ci yan base la ñuy ànd une question qui est restée sans réponse comme des supporters de sénégalais nous avons xamante dañuy des acteurs du football quoi qu'on puisse dire les clubs les seuls groupes de supporters yi nga xamante dañuy fonctionner dix mois sur 12 et ce tous les week-ends le collectif n'a pas bi mu ba travail remarquable parce que ku ne xam na passif bi géejawaay am ak Pikine mais bu ñu demee ba waa géejawaay di dox di ñëw Pikine seetaan si match wala dox ñibbi waat c'est la preuve que le collectif mu ci def liggéey bu am solo bi ñu dajaloo rek dem def waxtaan boobu ba pare on nous a approché on a approché le président Medoune pour lui dire que ni am ngeen fi 10 places président Medoune bi mu ñëwee nañu ah gars yi de ñun de wax nañu am nañu fi dix places man j'étais la première personne à lui dire une question est restée sans réponse kon donc ñun bu ñu joxee dix ci benn groupe 50 cela ne va que nous créer des problèmes on en a discuté Mais leen am nous sommes un groupe soit dañuy xoolal tour rek wala ñu xoolal nan ñu téye Nous ba ñu ko restitué waat ko dans le souci de bien faire mu invité dans une conférence de presse moi j'y étais au nom du collectif samedi passé accompagné de deux de mes amis Et on a fait la présentation nous sommes venus nous présenter en bon sportif bien vrai que nous restitué nañ seen diis ñu joxoon mais nous sommes en bonne foi parce que nous sommes sénégalais sport supporter l'équipe nationale du Sénégal même si tu que beaucoup de gens pas dañuy équipe tu dois être un bon sportif souhaiter une bonne chance de faire à notre grande surprise le patron du sport sénégalais s'est permis de dire des choses yi euh, ça nous a tellement blessé que ni Michel Lat que je euh, salue au passage ça nous a tellement blessé que nous, on s'est dit que nous, dans quel football sommes-nous parce que vous ñu le collectif même su le président Macky Sall bu ne jox du ma il a préféré donner ses quatre places à des batteurs donc on s'est dit que ñun ban place la ñu occupé dans le football tamit nit ki li olof ngeen naan juddu bu rëy mais il ak fayda sa on pouvait bien paralyser le football le football national on pouvait bien le paralyser mais bu ñu ko defee suñu bopp lañ koy parce que ñun ñooy rayante pour xale yi di ci terrain les dimanche soir suñu leen mobiliser boy leen c'est parce que dañoy bañ ñuy def yi yeneen choses yo xamanteni ñun après suñuy rakk du coup ñooñu boo leen wul waroo leen xaram mu metti ñu lool lool lool lool trop sax yéen a may dégg bu baax aussi la première chose à souligner mooy on peut pas parler de football national sans football local il nous doit le minimum de respect moom ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor football bi parce qu'on est passé par toutes les voies légales avant nous exécuter. On a demandé à la fédération, la Ligue sénégalaise professionnelle, qui nous a juste dit que nous Molo, allez-en parler au ministre des Sports. Moi qui l'ai fait. Mais quand on est venu lui parler, mais il a juste utilisé la presse pour dire ce qu'il voulait dire. On a utilisé la presse pour lui répondre directement, lui dire que on a beaucoup de respect pour le président de club on a aussi beaucoup de respect pour fonction bi nga ko c'est un ministre de la République mais néanmoins nous restons des supporters sénégalais des fiers sénégalais yi nga xamante équipe nationale bien vrai que mosuñu kooku ngefeen mais fu mu gérer dañ ci yëg suñu bopp ma bëggoon nag balaa maa gën sori bon pas trop monopoliser la parole donner la parole à Paco comme nous tey dañoo ñëw nekk ay éviter ci lii ñoom it ñu am ci ay cadres yoo xamante ne dañ ko après ñu gën a mën débat c'est Moustapha Sek, le président du comité de supporters de l'AS Nous avons fait appel à la presse pour euh, venir faire part de notre mécontentement par rapport à une forme d'injustice qu'on a subie ces derniers temps. Le collectif a été créé depuis pas mal de temps et nous faisons des activités qui nous permettent de réunir les jeunes tous les week-ends comme président du comité supporter. Et vous savez bel et bien que les clubs fonctionnent 10 mois sur 12 ce qui nous permet d'avoir un football local qui est en bonne marche. Et cela nous a aussi permis d'aller voir les autorités qui ont le football en main pour leur demander pour quelles raisons ils n'ont aucun respect envers nous. La première chose qu'ils ont fait, c'est utiliser un autre groupe pour nous donner 10 personnes pour venir assister à cette carte, ce qu'on a refusé. Mais néanmoins, nous avons pris le temps d'aller les féliciter et leur souhaiter bonne chance. Mais à notre grande surprise, le patron du sport nous a carrément dit, même si le président Matissal Sall demandait de vous donner des billets pour aller à Rakan, je ne le ferai pas. Ce qui est une insulte envers le collectif et tous les acteurs du football local. Nous avons beaucoup de respect pour le président du club qu'il est. Nous avons aussi beaucoup de respect pour le fonction de ministre qu'il occupe, donc de la République. Mais aussi, pour cette fois-ci, nous voulons lui dire qu'on n'est pas content des propos qu'il a proférés envers le collectif des présidents de supporters qui, comme vous le savez, déroule des activités qui nous permettent d'avoir un championnat en bonne marche, je bien. Parce que nous, et le nous avons un passif depuis pas mal de temps. Mais si en ce moment même, le collectif a fait des efforts jusqu'à nous permettre de jouer des matchs sans violence, ni GDPR, ni des trucs du genre, c'est parce que le collectif a fait un travail remarquable pour en, remarquable pour en arriver là aujourd'hui. Du coup, nous prenons l'opinion en témoin ce n'est pas à une structure d'éviter le collectif des présidents de supporters à venir assister à cette carte. C'était du sort des ministres de le faire. Mais lui, il a préféré donner ses places à des gens qui n'ont aucun lien avec le sport, qui n'ont aucun lien avec le football, dans lequel nous sommes depuis pas mal de temps, tous les week-ends pendant dix mois. C'est la raison qui nous a poussés à éviter nos amis euh, du deuxième gain authentique, les mains propres, Bon, sans trop tarder, je vais donner la parole à mon grand et ami Paco, pour au moins, euh, voilà quoi, pour euh, qu'il puisse entrer dans le vif du sujet. Merci. Euh, bonsoir. Je suis trop fatigué, hein, puisque ce temps-ci, je roule comme pas possible. Mais c'est le Sénégal. Hein. Quand on aime le Sénégal, c'est normal. <coughs> xam sama baat bi dafa dee nag de billaahi instant bi moom damay forcer rek quoi waaw waaw ok fi mu ne sama baat moo dee il faut may jege pour wax bi ñëw voilà asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp c'est la mascotte des équipes nationales du Sénégal

bàyyi ñu basket bàyyi wu ñu handball bàyyi ñu karaté maanaam Sénégal ci lu mu woote rek ñun suñu ngëm-ngëm suñu devise mooy dem taxawoo ci defe naa ne am na ci ñun ñoo xam ne def nañ vingt ans ñu ngi topp li nga xam ne moo di Sénégal ci terrain bu ne nag ci àdduna bi fu ne ñu dem fa Eh, man mi nga xam ne yàgguma ci rek defe naa 2012 mooy sama premier voyage ak lu ko seen ngay li diggante 2012 ak ak léegi rek def naa 47 pays dans le monde trois continents muy Europe Asie ak Afrique et eh, ñu topp Sénégal di ci am ay bànneex nam waaye di ci am aussi ay naqar banex moy un bon supporter su trompé équilibre am bu équipe am gagné rek banex rek la mën am parce que tant que mu ngi galvaniser moom xolum li li wara a ñëw parce que mom dafa opté nek ki nga xamné dafa fàtte boppam pour jox plaisir nit ki parce que ki nga ñëw di ko supporter mooy da nga ñëw di ko kañ mu ngi mel ni géwél bi nga xam ne dafa taxaw di la kañ ci sa ay maam loo yor da koy bëgg a defal bu dee tamit joueur bi boo koy galvanise moo performance am day gën di yokk léegi nag loolu ñun mooy suñu option dama koy faral di wax un supporter supporter amul c'est-à-dire un yow support nga un support nag moy lan yow da nga ñew téye ben soow wara fexé mu dem légui d'abord do do soi la d'abord balaa dara yow ok ta def ko ken fay la c'est ben vola mais lu mu nek nek di vola ñi nga xamné ñoy autorité ñi nga xamné ño ngank lepp dañ la wara delu aussi lolu ngay def mais on la affaiblir parce que euh, lolu so xolé jàngat bi da ngay gis ne ci suñu réew mi la soxé mais pour génnee ci yenn réew yi da ngay gis ne yooyu nit mais imagine toi ñun ñu nekk ci association dañuy dem dëkk ci ay classe et pourtant avion lañuy voyager nit ki taxaw fële lu muy jàpp gis ne dugg nañ ci avion dañ naan ah deuxième ngay dañ ci or ñëw ci jàmm fekk ci ay salle de classe mais yàlla def na ñi nga xam ne aussi président Macky Sall ñëw na jël nañ ñu fi pour di ñu yóbbu ci confort yu baax mais soo jëlee nit ki yóbbu ko ci confort bu baax bo mu nekk ak koo xame ne moom la koy jox yëpp yéenewu ko ñam koy ñamuy àndal mooy lam Qatar dama leen di jox rek bu gën a terre à terre Qatar bii mujj douzième gaynde déplacé wu na commission culturelle bi ñuy tëgg am na ci ñoo xam ne dañ daan tëgg ba six heures du matin yu jóg pour xejal ñoo xam ne dañuy ñëw remplacer leen ci lal am na ñoo xam ne fauteuil yi ci lañ doon fanaan am ñoo xam ne ay chaise la ñu rangale tëdd ci loolu yëpp ci mën naa joxe les images am naa image yi ak moom man te pourtant nit ku nekk ñu ngi ko doon état mu ngi joxoon cinquante euros par jour nga xam ne moom nga waroon ni lekk añ sa añ sa reer sa ndékki mais ñun ñu nekk ak président boo xam ne moom il a préféré créer ci réew moo xam ne mënoo faa togg mbaram moom mu togg lu fa mbaram pour cinquante euros yooyu nga xam ne moom la ñoon waroon jot nga xam ne dañoo àndoon ak suñuy nawle muy ale Casa muy lébu gi ñooñu day nem ñu doon jot seeni cinquante euros par jour dama bëgg ngeen calculer cinquante euro

yow soxoree nga sax jox nit ñi dara nit ñi il a fallu ay problème nar a am nga doog a dajale ku nekk nga génne trois cent euros jox léegi li des ci loolu lépp kenn mënu laa wax ne fii la dugg wala fii la dugg loolu benn la ñu nekk ak président boo xam ne moom mooy taxaw ci tele yi daal di wax ne moom 2012 lañ ko fal te man 2009 laa ñëw douzième gaynde man moo ma dalal douzième gaynde en tant que président douzième gaynde 2011 moom moo yóbbu euh, douzième gaynde Mali moom mooy taxaw ci télé yëpp ne 2012 lañ ko fal le même président 2011 boobu président Baba Tandian ci télé yëpp la ko wax moo ko jox foofu 12 millions 12 millions yooyu après sept ans après la ñuy doog a yëg 12 millions yi ci président boobu. moy ko nga xamé euh ci covid bi mom lañ jox mu dem 5 millions waron ku nek ci situation bi nga nek mu yonné la fa ben 10 000 francs préféré wul def lolu ci rapport afna lañuy doore yégué 2 millions genn na président bobu ci ay manipulation ci lolu lay défé ñuy dem ay levé de couleur palais de la république

mooy ministre Matar Ba à l'époque moo fi ne def ñu doon jël gurgur ñu dugal ci ay oto ne dañuy dem di ko topp ay Fatick di dem fu ne mu ne xaalis boobu ci loolu la ko dugal ça veut dire que nit am na loo xam ne aussi su demee bu ëpp il faut nit ki wax ko c'était pas le ñu nekk fii ci média yi di wax joueurs yi départ nañ démb nous avons di ñaanal d'Afrique des nations mais ce plus de 20 ans nous def 15 ans nga avons deuxième meilleur supporter du monde en Russie Oui, commission culturelle depuis 10 ans depuis 20 ans dirigé batteur 12 douzième nga bàyyi leen fi yemoo ci loolu commission boobu moo dem ci coupe d'Afrique bi gagné coupe bi ñëw nga bàyyi leen fi ne du ñu dem Côte d'Ivoire loolu su amee sax day doon loo xam ne daganu ñun li ñuy sonn ci Sénégal bu dee man sama cas voyage yi ma def yëpp cinq voyage na ma douzième gaynde mu sa jël total et entière Ça veut dire que les 47 voyages que j'ai fait, yëpp soit man maay Dagal sama billet sama poche wala université Gaston Berger Dagal ma billet wala ma am ay partenaire comme les ni góor gi si wala Kalidou Koulibaly voilà ñeneen ñu dagal ma billet man ma dem parce que man limay may gëm toujours, toujours y a un plan A mais y a un plan B man lool la mos a doxee li gëm fii Sénégal dem pour supporter man dama jàpp ne du ma xaar kenn pour dem ci lii nag ñun actuellement boolewuñ ñu ci deux cent billets lañ joxe yéen sax collectif bi am benn sens ñu jox leen gis ñun nag joxuñu un ci ci ci ci deux cent deux cent billets ñun joxuñu benn billet muy la mascotte

Nous n'avons pas de pour cette année. ñun déjà Côte d'Ivoire nous man nous avons dem Côte pourtant commencé cotiser parce que c'est récemment entraînement équipe nationale bi nous avons match Sénégal Saoud, Soudan suñu poste, nous nous sur suñu sur entraînement ñëpp daal ñii fuñ jóge ñu ne déedewaay bi may jóge Arabie Saoudite man benn doomu aadama kot yàlla def ci Afrique ba mu daj ma doon supporter boo xam ne joueur da koy invité ci club am muy Kalidou Koulibaly ba ma demee Italie dama ko rajaxe mu invité waat ma Chelsea ba desul dara lu ma ci mu blessé moo tax dew moon ma dem fi France dem velo Vélodrome yëngal stade bi ñëpp di ma teg ci seen kaw kii yàlla defaat mu invité ma fële nga xam ne mooy Al Hilal ma dem defe naa ne gis ngeen ñoom équipe boobu ban équipe la ci àdduna bi équipe bu mag la xool leen ni ma naar yi teraloo niñ ma teeroo comme si man man tey jii euh, euh, euh, roi laa woon foofu fu ma génn c'est autre chose Al Hilal nga xam ne booy dugg seen entraînement tu payes beaucoup d'argent pour dugg ci entraînement bi laa la wax man ñu mën ma accueillir tous les joueurs la staff le coach di ma béggee yemuñu foofu ñu toogloo ma fi président Al Hilal di toog ma dem ñu jox ma micro central stade bi may wëy dëbbe ñëpp topp ma yow réew mi nga dëkk réew mi nga juddoo réew mi ngay sonal ñu lay tëj ay kaso ay ay ay ay ay Égypte réew mi nga bokk association bi la bokk di la mo di monter ay nit ñu lay agressé association bi nga bokk ngay dem ay final ñu gis la di di jël mbaxano bi nga xam ne mooy sa chapeau sànni xeer ci oto bi nga nekk ba oto bi kii bi toj paraprise bi toj xeer bi ñëw dal sama kaw cest ngay ñëw pour supporter ñu ne doo taxaw fii di la bundu xatal fii laa jóge dem fi nga xam ne moo di Ghana ñu invité ma ma dem andir association bi dix mille dix ci humeuram moom mu geddloo association yi dix mille yi ñoom Eto'o di ñëw fii man maa nekkoon cible bi parce que dama waroon dem Qatar avant coupe di monde bi pour dem visiter Qatar parce que tous les mascottes lañ invité woon mais information bi moom bam ci jotee dafa ma ko tëj man dama jékki-jékki rek gis ci télé bi Eto'o mu ngi Sénégal te moom lañ woo maanaam information yu am c'est-à-dire bañ jógee fi nga xam ne moo di Coupe d'Afrique bu léegi manifestation bu am moom day woote parce que boobu gañee nañ Coupe d'Afrique gis na ne sénégalais yi soxla nañ léegi affaire bi ñëpp ñëw nañu engouement bi am na léegi nag mu doog a teg ay birigam léegi lu xew du woo kenn maanaam téléphone lay wootee pour mobiliser ñun du ñu ñun président boobu lañ am ñun mu def fi seize fukki at ak juróom-benn ci seize yooyu benn mandat électif la fi am saa yu ñu waree dem ci assemblée générale. suñ ko ko waree wax lu muy def mooy day tëgg ay soirée fictive cest diir day ne dañuy jouer ak Wally Seck soirée pour am ay moins wala dañuy jouer ak Youssou Ndour soirée pour am ay moyens mais loolu da koy def mais c'est fictif léegi ñëpp da leen di dugal ci benn bain de d'organisation or que du doon organisation léegi day dem ba nga xam ne Coupe d'Afrique des na diggante boobu un mois moom mooy monté ay nit woote benn assemblée générale ñooñu voté ne ko xeju fi mu koy dàq bu à trois reprises wala quatre reprises lolu moo tax te ñun à chaque fois dañ doon dénoncer ci biir groupe bi nga xamné ne groupe whatsapp bi dama mos dénoncer sa gestion ni muy doxalé man bama ñëwé def 1 an la gis ne lu jub néw fi ma ne ko Isa mu ne waa ñuy dem Côte d'Ivoire ma ko man dama bëgg Douzième Gaïndé delu ci ay règles de l'art

si yooyu bi biñ ko tëggee bo ba nga xam ne desul dara lu mooy euh, kii texte yi valider texte yi dafa jël texte yi denc ko parce que arrangé wu ko woon loolu c'était en mille 2014 boo fii may wax ak parce que amoon na ay limitation de ay nangam nangam mu xam ne lii sax arrangé wu ko mu ne texte yi dafa réer booba ba fii loolu amul ma leen di wax ne aussi mom biñ ko falé bu 2012 la wax 2013 la doga dem ut récépissé douzième gaynde ça veut dire que mom récépissé bi mu fekkone bu douzième gaynde bi da ko ignoré laaxu ko fa dem wat benen récépissé bu bees moom ak mar ñoo jotandoo récépissé en 2013 te bobu mom mu ngi réclamer né 2012 lañ ko fal kon ci ban récépissé lañ ko fale donc pour dem jeli récépissé wu douzième ngay ne wala nga dem xoli copie littérale u récépissé 2013 mo ci né ci association bo xamné def na 20 ans 20 ans 92 2012 ça fait 20 ans nga koy doog outal en 2013 c'est-à-dire bu togué di wax c'est un manipulateur c'est un manipulateur et nous, lolu dañ ko vivre xam ko ci mom ba nga xam instant bi ñun dañ ne dafa doy dafa doy boobu nag warul mën a tax tamit am mu ànd ak état wala mu ànd ak xaw kan la mën a àndal ba war ñoo mën a doon ñu ñu doon ñi nga xam ne ñun ñooy doon victime bi bëgg a taxaw si ñun ñaar ñii ne wéy dañoo dem Égypte ñu jox ñu dix million dix millions yooyu dañoo dem Égypte ñu jox ñu dix millions dix millions yooyu ñu séddoo te dama ne euh, douzième gaynde déplacé wu na fi ba taay Ablaye Wade moo leen jëkk a jox trente millions suukaru koor suukaru koor ci biir pale bi lañ ko séddoowee yaa ngi dégg suukaru koor te moom boobu moom moo ngi foofu xaalis bu ñu leen mos a jox dañ koy séddoo mais y avait un problème ñun yàgguñu man a mille 2012 dañ ñëw mais yàlla mooy dogal nit day ñëw yàlla am lu mu yëkkati teg ko ci loxoom parce que place boo yor daa am kooku téye un jour viendra da nga koy bàyyi da nga koy jox yàlla moo ñu def lim ñu def léegi nag loo gis dañ koy organiser mais tey jii bu ñu demee foofu ñu ñëw ñu jox ñu dix millions man bi ñooy bi ñu may signéloo papier blanc lañ teg ma joxe sama carte d'identité signé ñu jox ma faal signé ñun ñaar bi ñu génnee ñu woo six yi demoon yëpp plus moom muy sept moom nekk fa woon parce que daa jëndoon pale ñu ne léegi xaalis bi lii lañ ñu jox man sax nee naa ko Seydina nañ yóbbu nañ yóbbu xaalis bi jox ko mu séddale ñu ko comme ñun ñoo nekkoon Égypte parce que loolu la ñu wax dañ ne lii président moo leen ko may yéen ñi demoon Égypte yéen ñi demoon Égypte lañu wax mais gars yi ne kon loolu la wax nañ ko séddoo waa ANPS yi fa newoon dañoo séddoo waa Ale Gaza dañoo séddoo ñun ñu def loolu séddu ko ci moom mais moom li mu def pour manipuler ñun ñaar yépp la seppi de ñeneen ñi jot seen xaalis yëpp ñun ñaar la seppi ak ñuy wax ya aw badiam ak iba djey mu bind ci ben message envoyé ko sénégal bi yépp né 4 membres du 12e gaynde détourné 10 millions xam nga bu bindé lolu envoyé ko dem fay ala une bind suñu tour la bind ci balé ala une bi mu bind membres du 12e gaynde détourné 10 millions 10 millions yo 7 personnes ñoo ko sédo pourquoi nga bëgg attribuer 4 membres to y compris yow yaangi ci bir ça c'est lâche voilà personne ne lañ jàkkaarloo ñun Nous, pour dem Abidjan dañuy le président de la république di avons Lat Jo. wax dëgg fa yalla bolé won nañu ak secrétaire général ñu waxtaan ak mom ne ko ah ñun day jàmm rek moo ñu fu si ñun paré nañ mais waxtaan nous fek ñaari parti le bëgg ñun

ñun tooguñu mën naa ne directeur haute compétition bi man bi may nekk euh, Arabie Saoudi woo na kii kii tamit ne ko ñun du man ak Bakhoum kese parce que ñoom li ñu bëggoon mooy nañu coppet ñun ñaar yóbbu bàyyi mbooloo bi fi nekk te commission bi defe naa ne stade man ci parti démb bi leeral na lépp ñun ñoo def suñu ay moyen bopp ñoo cotiser suñu bopp ñoo yóbbu suñu bopp mal que bi ñu demee fekk nañ moom mu joxe consigne ci buntu bi ñu ne commandant bi nee na douzième gaynde bii seen matériel bi dugg joxe na consigne bi yàlla dimbale ñu tamit ñu woo ay supérieur commandant ba yàlla dimbale ñu loola daal di suñuy matériel dugg waaye bi ñu duggee euh, il faut ngeen comprendre benn affaire lan moo lan andi ñun ak collectif lan moo andi les ultras ci stade yi les ultras boo déggee les ultras les ultras à chaque fois ci ginnaaw camp yi la ñuy nekk ginnaaw camp foofu la ultra di nekk keroog dañoo def façon ultra avec les clubs on est derrière les camps une fa taxawé gis ngeen né bit bi ñun ñoko duggal parce que bi muy des une minute bi muy des une minute lañ def appel bi nga xam ne ñëpp ay tàccoondoo ñëpp suivre ñu boobu muy corner bi ñu ñëpp suivre corner bi ñëpp tàccoondoo tëgg ci la bit bi dugg fan la duggee suñu camp ñoom bi ñuy jubile fan la ñu kon nit loo loo tar bi yu mokkal ñun tey terrain yi ñuy dem si àdduna bi mën nañ servir lu bari mais même boko bëggé def manam day nek nit bi nga xamné da koy bloquer day bloquer yow sa ay initiative ay tifon, man ñëw na créer fi tifon boo xamné dañ ko waron di def ci stade yi mais biñ ko bëggé def il a bloqué c'est-à-dire mom toujours google nit ki nek au devant de la scène mom dem na ba légui gis ngeen ay masque lay yor ak ay mbiip ak

yaa ngi dégg kon 12e gaynde bu demee ba nga xam ne mu ngi dem ci ay réew mais c'est parce que c'est état bi moo koy jox président Macky Sall li muy joxe ci la 12e gaynde di demee dégg nga moom nag dañ koy remercier parce que il a montré le bon chemin deux mandats la def léegi nag deux mandats yàlla na ko yàlla may deux coups loolu daal mooy loo xam ne moom laa français wu ma de waaw assemblée générale bi non loolu ñi koy wax fii si ensemble village dama woon a tax du wax mais gars yi dañu ma ñëw sànni si ay tuuti kàddu en tant que porte parole man fu may waxee rek damay remercier ñëpp di remercier douzième Gaindé les mains propres ñoo ñëw tey ànd ak collectif bi si benn combat boo xam te légitime la def naa fan yee passé dañoo gis le ministre Lat Diop mu woo Allé Casa woo douzième Gaindé woo AS Lébu ne dañuy manko wuti ndaw mi mu ma xool seen bi ñu fa toog ñëpp woowuñu collectif des supporters woowuñu beneen douzième gaynde bu meer ma ne lii la tasaaroo wuti ndam li la ndam li moom dinañ ko am moo xam dañuy manko moo xam dañuy tasaaroo mais tasaaroo wuti ndam li la dina jeex yàlla nañ yàlla may ndam ndax ñun ñëpp Sénégal leen mais dañuy wax rek le ministre dañuy wax rek le ministre la Diop ñun bañ ko nemee ministre des sports dañoo amoon yaakaar ñi ñuy nekk sport football bi ndax dañ ne kat football bi kat jox nañ ko cëram ndax ñëpp xam nañ ministre des sports du football dong mais ñëpp xam nañ football mooy sport boo xam mu ëpp doole si àdduna kon nag bu ñu jëlee le président d'un club muy Guédiawaye FC ay supporters yi ñu toog nii ñu dem tey jox ay quota jox club jox ay quota jox douzième Gaïndé jox lébu gi jox Allez Casa jël jël jël bëy na naa yóbbu sama tambour major jox naa leen quarante ñoo xam ñu ñoo koy tëggal sabar muy ñoom famille Ngom ñooñu tëggal Balla nga bàyyi fi supporter yoo xam ne ñu ngi nekk si club bi nekk supporter nekk si stade yi loolu la ñu ko wax mooy injustice bugguñu woon nag tey Sénégal nag pression yi nag fu fu nekk lay jógee boo nekkee sa dëgg moom lu nekk di nga ko dégg lu nekk di nga ko gis ensemble général bi maa ngi jégal sax point de presse bii rek pression bu ne jot nañ si pour ñu annuler ko pression bu ne jot nañ si mais dëkk bi nag moo demee noonu. boo nekkee si dëgg bu ragal waxal li ngay wax rek bu subaa la am yàlla xam ne Côte d'Ivoire nag comme ni ko Papa waxee yeneen gars yi waxee Ségana dem nañ dëkk yi gën a sori Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire boo yóoxoo sax ñu dégg la xanaa buñ buñ ñu bàyyi ñu ne jour jours dañuy dox sax balaa vingt et un onze onzième jour bi ñu ak Côte d'Ivoire kon nag lu ñu mën a yóbbu Côte d'Ivoire dañuy wax rek ministre yi mu yóbbu ñu Côte d'Ivoire ku bëgg dem di nga dem mu yàq yóbbu Côte d'Ivoire dinañ dem Côte ndax bu ñu dem demaluñu moom Sénégal la ñuy supporté Sénégal la ñuy loolu comme xam Sénégal la ñuy dem teewee Sénégal moo ñu ñor waaye ñu ngi jot ay rumeur que tamit ñu ngi jéem a bloqué yoonu suuf gi pour bañ ñoom faal ak ñeneen douze ngeen di jaas yoonu suuf gi waaye kañ lañ tëj yoonu Côte si ah, ba ñu waajee dañ fay jaar lañ bëgg a tëj yoon bi mais ñu ngi leen a xaar buñ tëjee yoon bi tam avion yaa ngi fi rek am nañ ay nit ñu baax ñu mën a jàppale ñu def man leen Sénégal la ñuy supporté Sénégal moo ñu waxuñoo kenn Sénégal moo ñëw dañ ne lu ñuy laaj lu légitime la lu ñuy laaj fekkee dañ koy laaj loo xamante ne nekkul lu yoon nañ wax lu ngeen laaj yoon club bu toll ni Pikine mi ngi fii club bu toll ni Guédiawaye ay Wakaam yaa ngi dégg RS Yoff club yëpp naa nekk si football bi di lundi au dimanche neuf onze mois neuf mois dañuy nekk si stade mais ñooñu kan moo leen dàq supporter kan moo leen gën a mën a way kan moo leen gën mën a mais kan moo bëgg Sénégal mais ñu bàyyi fi club yooyu yëpp ne léegi dañuy jël ñaari club muy benn club sax la ñuy jël muy aller Gaza génn ko si club yooyu ñu doole lu ma gën a métti rek mooy saaga bu ñu saaga club yi nekk supporter yi nekk football bi yëpp mooy ñu bàyyi ñu nekk si bopp di lënd au dimanche club yëpp bàyyi ñu fa dem jël benn ik club newetaan ne moo leen dàq supporter mais xanaa dafa seetaanu mas figin géej waaye je suis désolé nag suñu autorité dañu xoolaat li def bu baax club yi nga fi di supporter di def ambiance si stade yi yaa ngi dégg kenn xameewu leen leen mënu ma conserver tamit lu toll ni douzième gaynde bu amee problème muy ñaari douzième gaynde

kële bi ñoo war a fal président douzième Gaïndé kële bi ñoo si loolu la ngeen woo nañ dem ensemble général ñu fal président douzième Gaïndé mu am légal am légitimité boo xam kële bi ñoo koy fal gis nañ ne garab ñu woote ne léegi dañuy bëgg a maa ko wuti ndam li woo Kaasa mu sol vertam woo Lébu bu mu sol douze am waa douze am gën a ñëw seen version bi man leen ba tey ñu ngi téye étoile bi rek étoile bi dama gul après étoile dama ko doon étoile dans une collectivité xaw ma loolu ñu ne bu tey foofu tam bu ñu supporté kii day tëgg quinze minutes bu ñu paree kii tëgg quinze minutes bu ñu paree kii tëgg quinze moom si bi jeex loolu mooy la xaa ñoom ñëpp supporté yu Sénégal hmm? xaa supporté yu Sénégal duñ tey tëgg ay sabar rek pap ak ay jémbe ak ay asugo ak ay cum loolu la ñuy supporté

injustice bi am ni gëm naa ni su ne jàpp ci noppam problème bi dañ ko réglé parce que mënuñu toog cent soixante dix membres douzième gaynde toog bañ a dem Coupe d'Afrique cinquante membres collectif des clubs muy deux cent deux cent vingt personnes ñu bëgg leen fi bàyyi loolu injustice weesu ko gars yi dañuy wax ni manko uti ndam li mais ni tasaaroo uti ndam li la ñun nag suñu réew kenn gënuñu ko bëgg réew mi la ñu gëm moom la ñu fonk moom la ñu topp ñu topp ñu nit de ñun Sénégal la ñuy topp te Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu tax a jóg suñ dee raam sax di dem Côte d'Ivoire ci kàttanu suñu borom dañ fa dem mais ki nga xam ni moom la ñuy waxal mooy président de la nga xam moo jiite ñëpp ñu xam ni nag ñun ci réew mi lañu ñu bokk parce que geenu geenu bay gàtt na trop wante ci jur gi la bokk kon nag ñun ci jur gi lañ bokk waruñu ñoo bett Euh, lii lii lii Medoune wax résumé na lépp parce que tey jii mënoo ñëw ñaari parti am problème su ñu amee problème rek leen war a woo waxtaan déglu leen nga ne non du ma leen déglu ñu leen non ma leen déglu kii moo fi nekk moom la laay déglu pare naa ci non loolu suñ la jiitalee suñ la jiitalee da ngaa war a mat njiit njiit mooy kan mooy kii déglu ñëpp parce que soo ko dee def rek doo juum nit sax dina juum wante boobaa li ngay juum du bari tey jii Coupe d'Afrique bi incha allah rabbi ñun collectif des euh, ñun lay may ak collectif des clubs ñu bokk benn gëm-gëm suñ dee jël suuf si sax di dem dinañ dem ci suuf si incha allah rabbi kooku moom na ko Sénégal yëpp xam te yaakaar naa tamit soo fekkee ay nit yu jubawoo li leen fii seen réew tax leen jóg ba ñu dem ba fële ba àgg fële yaakaar naa xanaa foofu nag amoo sañ-sañu wala kàddu di ko yëkkati di wax ñii ànd leen ngeen ñëw doon benn. loo xanaa loo xel xalaatu ko sax ci këru àdduna Sénégal nañ ko teg ci yoon di def yoon di def dëkk parce que tey jii lii ñuy def nii ñun ay doomu réew bi ñu ngi déplacé deux mille supporters Algérie moo gën a sori ñun Sénégal ñoo gën a jege pour àgg Côte d'Ivoire Algérie gën a sori fukki junni yoon Algérie su demee yóbbu deux mille supporters Sénégal ni ñaata supporters lay yóbbu trois cent cinquante supporters kooku c'est minime champion d'Afrique pays frontalier yi nga xam ne ñoo jege ñoo frontière ñoo frontière ak ak Côte d'Ivoire muy Mali muy gine muy Burkina Faso muy Ghana muy Togo ñooñoo ñoo fay ëpp fukki junni yoon ak juróom-ñaar parce que suñ jëlee oto duñ ko def sax benn fan àgg fa mais kon de grâce ñu ngi delluwaat di ñe tàllal loxo suñu président de la République nga xam ne tey jii moo joxe ay subvention pour nit ñi mën a def mu mu gestu collectif dëkk la ak les mains deux cent vingt personnes ñu def Côte d'Ivoire incha allah sama gars yi waaw moo complété euh, démb monsieur le ministre Mansour Faye allah gis naa ko démb te jàpp naa ne dina ci taxaw taxawaay bu kon monsieur le ministre Mansour Faye Mouhamadou Mansour ñun Touzen Gaynde bii ñu fi bëgg a bàyyi ñun club ñu fi bëgg a lay demande ci sa ni nga mel ak ni ngay doxee nga taxawuñu ba ñun ñu yëpp suñu message bi yegg ci président de la république mu yóbbu ñu ñun ñëpp monsieur le ministre mun naa ko

donc loolu def na nekk na lu am solo aussi damay wax ni cadre bu dafi bii pour man booy jox quota da ngay jox quota ki cible foot local ku cible foot local mënu xam réalité pour aussi ngay jël ay quota di ñoo xamante ne ay tëkkat làmb donc pour man c'est déplorable parce que ñun làmb lañ xam ñun chaque week-end les samedi ay dimanche ñoo ngi si championnat bi ñoo ngi si lépp si euh, dans les gestates pour l'an, pour supporter, pour l'an, pour suivre le foot local. Parce qu'on est des amoureux du football local. Mon c'est chaque jour. Bon, on est dans le le stade euh, Mais bon, on est, ça Donc cela veut dire que nous, sommes certains amateurs, nous, Sénégal Et aussi j'apprends que les ay ndam li parce que kuy uti da dangay da ngay boole boole ñëpp ñëpp nga toll leen bokk ndey bokk mbaay parce que ñii dem sama xol tàng ñeneen ñi dem di kontaan waaye loolu luy na dara de boo bëggee jël dara nag boo xoolee daawatu géej ba nga koy jël ñëpp a booloo bokk ndey bokk mbaay ba ci sëriñ yi ñëpp dañoo joxante loxo joxante lépp cela veut dire que yàlla bëggul ay xaajaloo da bëgg ñëpp xol yi ñu koy boole di bokk ndey du bokk mbaay te aussi ngay jox ay ay seen mais ay seen yi ay vous êtes ñëwee vous êtes les les clubs les clubs aussi nous, nous nous mais nous d'abord nous, les nous, nous, nous, comme ça nous nous, nous, mais le fait que sommes Nous nous nous dem nous Nous dem nous nous Sénégal Nous c'est nous dans nous je remercie aussi le président de la république parce que avons euh, football Sénégal évolution développement parce que Nous avons ay finances par rapport au football Sénégal pour nous avancer. avancer nous mettre dans les bonnes conditions donc aussi nous mon le mon nous mon mon mon mon uuf situation solo aussi je ne peux pas comprendre aussi nga nekk ans, benn affaire nga doon générale ça c'est impossible mënu nekk assemblée générale après CAN bi yal na yàlla may Sénégal jël d'Afrique bi pour la deuxième fois te lu ma gëm la si kàttanu yàlla mais nga après CAN obligatoirement nañ xam mois de mars normalement war nañ mën a def euh, assemblée générale bi comme ça ñu jëmale football bi kanam ñu commencé à travailler ñu def maa ngi remercié merci beaucoup. koy waxee ak président c'est le dernier intervenant après incha allah ngi nuyu di ziar ñëpp di leen jégalu si yàggaay wi Ibrahima Gueye la président comité supporter union sportive de Matam douze e e. en même temps membre du collectif des présidents supporters des clubs du Sénégal bon man euh, dama am lenn rek loo xam ni. bëgg bëgg naa ko wax par rapport ak le ministre des euh, bu ñu gisee ni tey lii président wax sànq moom mu ni même bu fekkoon président de la république dafa décider di pour ñu jox collectif bi des billets pour ñu dem Côte d'Ivoire moom du ko def euh, lu mu lu mu dolli la rek lu mu dolli la parce que mënuñu mënuñu ñëw nii moom mënul taxaw ni xamul collectif bi wala reconnaître collectif bi avant muy nekk président avant muy nekk ministre des sports moom moo nekkoon directeur LONASE da bi muy remettre subvention yi collectif bi la invité invité douzième gaynde invité collectif bi méridien président kon kon xam na collectif bu bu baax reconnaître na collectif bi xanaa kay dañ ni dañ naan dafa dafa dafa jug pour def lu ko neex parce que yow mënoo ñëw collectif bi déjà man dama jàpp ni euh, ñoom dañ bàyyiwul xel liggéey bi collectif bi di def bu ñu xa xel liggéey bi collectif bi di def dinañ jéem a def le tout ba soutenir collectif bi yokk ko doole parce que tey boo gisee man président comité supporter Niass Koulibaly Ka ma xamante ne président comité supporter bu AS Pikine bu ñaari tali bu stadd de Mbour bu Guédiawaay bu Sonacos ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni daan nañ dund ba mun noonu lañ dund ba génn àdduna bu ñu xamante te am na ñoo xam ne avant ñun am na ñu nekkoon ay président comité supporter nekk nañ fa ba seen mandat jeex xamante wuñu tey li ñu def nii ñu am collectif ñun ñëpp ñu xamante seen biir tey kenn kenn ku si war a dem jouer ak sa morom dina wàññi lu bëree bëri bëri bëri bëri si loo xam ne war na fa mën a am si violence tey ñun ñëpp dañuy xamante dañuy déggante ku si nekk balaa ngay dem sa dëkku morom da nga koy woo ngeen waxtaan bu ñëwee yaa leen gatandu yaa leen gatandu yaa leen di dalal te dañ siy waxtaan si collectif bi dañu am groupe boo xam ne dañ siy waxtaan à chaque fois que ñuy war a dem kenn war a voyager dem dëkku keneen da koy da koy yëgal buy ñëw da koy yëgal kële balaa mu ñëw dina xam ñaata personne ñooy ñëw wala buy indi ay car ñaata car lay indi ñoom ñoo koy dalal ñoom ñoo leen di euh, mettre en place si seen tribune gunge bañ toog seen tribune bu match bi jeexee ñooy àndaat ak ñoom bañ ñibbi tey loolu day jouer rôle bu bëree bëri bëri bari bëri si si non violence bi tey dina wàññi violence bu bëree bëri bari bari si stade bi loolu moo nekkoon suñu premier objectif déjà ree bi si si si yi si match championnat yi

ñoom ñëpp dañu war a sentir seen bopp si douzième gaynde parce que club yooyu noonu ñoo war a former douzième gaynde club yooyu ñoo war a nekk dooley douzième gaynde li ñu doon wax euh, ñun ñëwuñu bugg a dugg douzième gaynde nii dañuy dugg douzième gaynde ànd ak ñii wala ànd ak ñële loolu suñu objectif dañ ñëw bi ñu ñëwee douzième gaynde bële euh, ñoom Issa woo ñu ñu rencontré leen bi ñu paree ñii woo ñu ñu rencontré leen ñu lenn lañ bëgg douzième gaynde bi ànd ñun ñu ànd ak douzième gaynde bi on n'est pas pour ànd ak ñii wala ànd ak ñële non non on est là pour le Sénégal eux ils sont là pour le Sénégal ensemble nous serons là pour le Sénégal mais douzième gaynde bi comme ni nga ko waxee léegi douzième gaynde bi douzième gaynde bu Sénégal club yi ñoo war a former douzième gaynde président douzième gaynde bu fi mënti nekk bu fi war a mënti nekk président club yi wala club yi ñoo la war a fal. parce que club bu nekk dafa war a am représentant si biir douzième gaynde parce que douzième gaynde dañ ni genre dañ koy jàpp benn affaire boo xam ni. douzième gaynde la Sénégal la rek yoonam nekkul si club yi te club yi ñooy formé loolu noonu équipe nationale locale buy dem douzième gaynde bi ni ñuy dem dañ koy dem supporter ji équipe nationale locale boobu noonu club locaux yi ñoo ñoo fa ñoo ñoo la fa seen joueur di dem kon tey dafa doon loo xam ne dañ si war a bàyyi xel bu baax club yi nañ leen boole si mbir yi club yi nañ leen boole si mbir yi tey Issa Laye woo nañu proposé ñu dix personnes pour pour yóbbu ñu kaan tey lan a a tax ñu nangu dix personnes yooyu pour dem kaan mënon nañ ko def de gaay ñi wax naan peut-être bu nga jëlone mën na indi problème suñu biir mën nañ ko jël sans pour autant mu am problème suñu biir ñu tan 10 personnes ñun suñu biir ñu dem ñene bu ñëwé ñu continuer suñu liggéey mais buñ ko def xam nga la tax yow mëno and ak ay nit bo beulé ngay and ak ñom ay campagne nga am féwolé ak ñom nga ñëw bëgg ñu jël dugal ñu ci sa biir bayyi leen ñom ginaaw mënul nekk yow ñu ma àndal munoo bàyyi sa njaboot bëgg a jël njabootu jàmbur dugal ko sa biir njaboot kenn duñu muuroo kenn ànd ñu ànd ñu xool nu ñu def assemblée générale bi gars yi di wax naan dañ ko war a def dañ ko war a def obligatoirement ça va se faire ça doit parce que du moom du ñoom ñun la Sénégal la ñoo ko moom tey bu neexee ñun ñëpp lay neexal bu naxaree ñun ñëpp lay naxaree ñun ñëpp ñoo war a ànd booloo def benn liggéey boobu noonu kaan bi jege naam jegewul en tout cas incha allahu rabbi fas yéene euh, bu ñu jugee kaan ñu def assemblée général boobu ñu fal président douzième gaynde bu ñuy fal douzième président douzième gaynde club yëpp am si part ñëpp xam santi seen bopp kër yëpp santi seen bopp si douzième gaynde loolu laa amoon pour wax maa ngi jégal bu baax Euh, merci à tous je me jumul on a fait le tour de toutes les questions benn affaire rek laa ci yokk mooy mbirum dafa am loo xam ne da ko wax te c'est très important mënuñu nekk deux cent vingt personnes yoo xamante ne dañuy xeex pour benn objectif ñëw fii am na ñu ko yàqal man Tafa Seck bi dëkk Pikine ay autorité jiital ma ku ci mel ne le président Mamadou Gueye ku ci mel ne monsieur le maire Abdoulaye Timbo di nijaay ci Macky Sall man dama leen de lancer un appel direct à venir soutenir cette campagne bi nga xamante yeen yéen ak ñun ñoy ànd inshallah rabbi dem soutenir l'équipe nationale du Sénégal dem jël cette deuxième sac ñu ñëwé ñu constituer cette assemblée générale dans les plus brefs délais ñu régler ce problème une bonne fois pour toutes inshallah, rabbi Sénégal mën a am bon allez-y. la question. pour euh, tout le monde Mala Sané des TV donc je euh, remercier assistance bi di collectif bi parce que le collectif bi nous ma xam parce que chaque week-end nous un ci stade donc je remercie vraiment c'est seen je remercie aussi euh, le mascotte de l'équipe des équipes nationales Fall le porte-drapeau et le deuxième gardé entre guillemets les portes, parce que tous. lañ il y am une question yu ma bëgg collectif benn question bi ma laaj ko Fall donc damay commencer ci collectif bi euh, c'est vrai que vois le football tu vois les clubs mais quand on parle de douzaine Gaïndé on parle de tous les sports du Sénégal petit ci vous vous réclamez qu'il doit y avoir assemblée générale Sénégalais vous n'avez pas assemblée générale est-ce que le collectif des clubs des supporters des clubs de football est prêt à assumer ce rôle de douzaine Gaïndé pour accompagner tous les autres sports ça c'est un de deux, la deuxième question pour vous, moi, c'est vrai que vous êtes des supporters, quel est le légitime du au Sénégal Mais est-ce que aussi, campagne Grenby, ce n'est pas tellement prématuré parce que le Sénégal, aussi, vous ne parlez pas de parce que 2000, vous ne parlez pas de savane. Vous ne parlez pas de grec, le collectif n'est pas encore tellement, tellement connu sous l'échiquier national que vous fréquente. Ça, moi, il y a deux questions que je vais lui poser avec un ton L'année que je vais faire poser. Depuis plus de au moins dans tous les plateaux de télévision, on voit le deuxième gagné de Isaraï, on voit le deuxième gagné de Paco et consort Bouyagou Dara du Disfal, drapeau, nekk tribunal ak le ki nga xam Issa Laye fan ngeen toll ci ci tribunal bi te Sénégal mi ngi reconquérir le titre continental de Ramé, nous ne ñun ñëpp merci. question donc je ne pense pas que mu ben un problème que ça soit Pékin, les sportive de Wakam, Guédiawaye ou même euh, le Jaraaf de Dakar ont toutes les disciplines le week-end passé on a présenté notre champion de boxe sur la pelouse Pékin Box Club le 26 passé nous avons joué nous C'était un mercredi euh, contre Casa Sport ce jour même le junior du basket de doon joué au stade cela prouve que nous, en tant que personne nous nous, dañoo jël suñu implication def ko ci nga xamante ne toutes les sports mooy sports yi gravité autour de nos clubs mais ñun loolu mënuñu ko def suñu club ba pare di ko bañal l' équipe nationale du Sénégal et le douzième Gaïndé loolu moom la lancé surtout ça. waaw ah, merci waaw question bi ma posé c' est pas la justice je fais confiance à la justice de mon pays merci. amaatul beneen question.

nga kii a warul am problème de position non sooy de euh, problème pays, ci football ci Sénégal mais <laughs> mënoo ci génne Pikine mënoo ci génne Jaraaf mënoo ci génne union sportive de Ouakam te mais ñoom ñooy constituer football national bi stade de Mbour donc ñun li ñu réclamé dañu que surtout li nga xamante ñoo xamoon de droit nous sommes des ayants droit quoi donc nit ñi ils nous connaissent parce que ñun ñooy dem ci stade par week-end te jàpp naa ne sax ñun lañ gën a xam que certains qui se réclament supporter depuis Pikine te euh, du euh, du football gis ngeen dafa neexut taw rek des gens ñi ngi privilégié des gens yi nga xamante ne ñun nous parvenons à nous réunir toutes les week-ends <laughs> bokkul ak ki nga xamante ne tous les chaque douze mois trois mois ngay réunir de gars yi ku mën rek ñëwal ci championnat bi foofu la ñu xam ñu mën incha allah rabbi. waaw merci beaucoup waaw li ñu koy tëjee nag. parce que Sénégal day dem Coupe d'Afrique ñu soxla ndam dañuy jox passe Pape Massar mu joxe tàllal leen loxo yi ñaan gars yi yëkkati leen ko parce que ñu lay supporter la ñu non dañ ko dañ ko tàllal loxo